nekk ne man maay deuxième Ousmane Sonko te mënoo ko nekk. bon sonko sonko lu gi moo ko sonal et puis euh, ci cadre bi man mën naa ne sama dernière euh, sortie yu bëree bëri. Mhm. demoon naa ba ne bugaan du ma waxati ci moom. Mhm. parce que li ko waraloon mooy dama jàpp ne ñun bu ñuy toog di wax di jël suñu temps. Mhm. dañ koy basé surtout que ci loo xam ne jàpp na dina am njëriñ. waaye tam di ko wax ak koo xam ne jàpp nañ ne am na euh, crédibilité benn bi pour ñu war a taxaw ci ay mbiram. waaye et puis beneen bi dama demoon ba seetlu ne. dafa bëgg moom bénéficier wu suñu ay parole ñun. pour yegg fi mu bëgg yegg. c'est-à-dire bu mu waxee moy japp jàpp na Ousmane Sonko fi mu yegg si fa yegg liko fa indi moy nit ñi dañ doon wax ci mom toujours tout le temps dañ doon wax ci mom di wax ci mom di wax ci mom motax tax mu am ci bu am mais nag dama ragal li da daloon yo dal ko yo bi da dem ci mam ji ne ko maam man amna naa bayre de mu ne ko ah mu ne ko fu jaar dañ may tàcc mu ne ko foo seen ko lay tàcc xamal ne dalaa bëgg ray mais ciow li ñuy coow ci bugan Gueye Dany xool ko depuis mu commencé opposer Ousmane Sonko ba léegi mhm. parce que bugan li tax may ne depuis muy opposé Ousmane Sonko ba léegi Bougane ba muy opposé Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu ngi ci opposition bi pas bu ga nekul da ko opposé Ousmane Sonko de. Ousmane Sonko di opposé. mom mhm. la koy opposé. ci fàttali. Mhm. dama ben année inondation bu melni am. Mhm. buma Je Kër Massar côté à Ousmane Sonko dem fa. bimu mu waxtan ak askan bi bimu fa joggé fekk sax lu jitu lolu ma dem 2017 ou bien 2018. Ousmane Sonko présentation livre solution. Ah. amaloon ko ci façon format boo xam ne néewoon na ci Sénégal nga gis ko politique bu ko def bind sa livre indi ay nit yoo xam ne ñenn ñi taskatu xibaar lañ am ñoo sax ay économiste lañ am ñoo xam ne ay sociologue lañ mm-hmm. nga ne leen posé leen ma ay question yi ngeen am ci livre bi ma bind li ngeen ci d'accord ak li ngeen ci d'accordul ñu débat ci Ousmane Sonko def bitim réew am rencontre bu mu nekk ñu dégg ko fa mu ne réew moo xam ne lekk ak naan lañ sox kenn du fa nekk di bind ñëpp xam directement que ne wax ji Ousmane Sonko la ko adressé moo ko moom parce que livre solution bi mu génne moom la jàpp ne war na ko ci critique mais Bougane boobu lañ dem ba ñu dëgmal élection 2024 man ma am chance su participer bokk si ña fa teewal mm-hmm. Bougane di def benn mitinam bind brandir benn livre boo xam ne mu ngi ko tuddee mais yow nee nga livre soxlawul di bind. Sénégal yi soxlawul nga def lii la nga bañoon démb. moom nga def tey mais bref loolu garaawul euh, parenthèse la rek mu doon jaar. mais euh, nga gis ne yàgg na ko topp di ko di ko di ko opposé te boobu Ousmane mu ngi ci opposition bi Ousmane dem Kër Massar wax ak ña fa nekk euh, ànd ak ñoom seen naqar masawu leen. la mhm. sa mu dem fa yóbbu moto pompe ak yeneen ak yeneen ne fu ñu soxlaa jëf fu ñuy fu ñu soxlaa ay jëf wax tekkiwu fa dara. ñëpp xam ne Ousmane Sonko tax ñu yoon daanaka mën na ne loolu fa la seen classe ñoom ñaari déparé ba nga xamante ni daanaka déggoo gi ñu amoon ci seen biir bay dem seen ay meeting parce gis nañ meeting Ousmane Sonko meeting euh, Bougane boo xam ne Ousmane Sonko dem na fa jël fa parole ba nga xam ne moom euh, Bougane si boppam wane na ne élection 2019 bu amee ku muy jàppale ñaar lay doon muy Ousmane Sonko Pastef wa ila pire ak nga euh, hmm. mais nous avons bi des élections ci élection yi Idriss la ci kon commencé Ousmane Sonko Ousmane Sonko été au pouvoir ki ngay opposé mu nekk opposition bu yegsee au pouvoir day baax nga xam niveau yi xam ne bokkatul tolloowul Ousmane Sonko wala boog itam Bassirou Diomaye Faye bi nga doon opposé mu nekk ci opposition bi bokkatul ak bii kii dafay incarné état gis nga li mu def barki démb ab Bakel Sénégal la koy defee mu jikko mais am na réew yu mu doonoon wala boog itam sax fa mu tolloon bu ko dépassé woon dañ koy dóor bal tëll mu wàcc te du mujj fenn est-ce que dañu ko dajal a dem gis nga sécurité présidentielle nekkul lu ñuy fowee bokkul ci lu ñuy fowee maslaa gën ciy def boo seetloo bu baax a baax yenn bërëb lañ koy def mooy këru diine yi bu mooy foofu amul feneen fuñ ci fuñ ciy maslaa boo seetloo gulet nga gis Diomaye fay am fu muy dem ci Sénégal jël yére armée sol mm. gulet ci Sénégal nga gis Bassirou Diomaye Faye déplacé wu demeewul ak avion demeewul ak cortège présidentiel bi nga ko tàmmee mais avion armée bi moo ko jël nga yëg ne protocole bi nga tàmmoon yow di miin ci wetu président Diomaye Faye gis nga ne am na coppaliku goo xamante ni am na ci mhm. mais léegi loolu naka nga koy liiree doon nit waxuma sax ngay doon homme politique waxuma ngay doon borom xam-xam ne mais nit kese kese nga jàpp ne même situation ñoo yam manam contexte yi bokul bërëb yi bokul fofu dama nek ben bërëb bo xamni meun nañ ni ci son dansé la tudd xam nga tax yoyu duñ koy communiquer moy da ngay dem ba mel da ngay stigmatiser ñafa fa dëkk loolu tax duñ ci communiquer mais buñ ko doon expliquer dañ nan son dansé la c'est-à-dire que dafa am ñimu mu frontière te ñu muy doon dëkk yoo xam ne jàpp nañ ne bu terroriste doon dugg si réew mi foofu la ñuy jaaree léegi yow est-ce que yooyu mm-hmm. nit mën na doon nit boo xam ne nii ku nite nga dafa créer benn euh, trouble ba nga xamante nii dañuy soxla ay euh, force de l'ordre dañuy dem di di di di di intervenir jàpp naa ne loolu mu def grande erreur la boo xam ne nii bu xamoon carrément li ko ciy xaar xam nga lay def mm. sant gërëm gendarmerie nationale bi nga xam ne ñoo ko baaree ba yeggul fa nga xam ne nii fa la bëggoon a yegg parce que fa mu fa ñu ko arrêté noonu mu bañ ñu forcé ko ba këtam këtamee ko dugal ko ci oto mm. xam la lay niru mm. comme sa xale bi nekk sa kër di tëb jëm ci taal nga koy féq di ko ñot na muy wéqoog na muy jooyee xam nga bu baax na loolu musalam la parce que bu yeggee ci safara sa la mu fay jëlee moo ëpp doole bugaan na sant gërëm suñu force de défense et de sécurité wala bëgg dem gendarmerie nationale bi nga xam ne ñoo ko téye ba yeggul ci li xam ne fa mu jëmoon mais bu fa yeggoon ak lu ko fa mëntu dal amul benn responsabilité buy dal buñ ciy xool keneen loolu moo ko yóbbee boppam parce que sécurité présidentielle bàyyil xel bu a baax euh, dal na fi boo seetloo Touba na am lu mel noonu mos na am nga seetlu Macky Sall dem fa dugg ba toog sëñ Muntaxa Basiir Mbàkke boobu nekkul xalif xalif boobu sëñ Sidi Maxtaar moo fi nekk sëñ Muntaxa jógee këram bëgg ñëw ci jumaa ji pour julli si jumaa bi mu ñëwee sécurité présidentielle bi ñoo ko téye ne ko doo dugg ba mu juróon sax polémique comme ça nit ñi xool suñu nekk ba mujj na toog si kanamu sëñ bi di ko leeral di ko expliqué lan mooy expliqué loolu mooy président bu waroon ñëw fii tey ci studio bi sécurité bi danañ jiitu ñëw xool lieu bi xool sécurité bi fan ak fan la nekk mais buñ xasee def loolu ba pare ba def seen repérage ba pare ba président dugg amatul kuy duggati parce que li fi nekkoon métti loolu xamul la président dugg na ci benn zone boo xamante ni zone bu ñu war a sécuriser la sécuriser nañ ko ko ba nga xam ne yow conseil yi ñu doon def ci wàllu sécurité sax defuñ ko Dakar mais foofu lañ ko euh, defee ji décentraliser ko defee ko Bakel ci dañ may tere ma dem ak dikk te homme politique la Ousmane Sonko nañ ko doon euh, toroxale démb noonu la may toroxalee tey <laughs> yàlla du yàlla de yàlla du yàlla te itam dafa am yoo xamante ni boo koy def def day baax bu ngoon jotee nga toog mag ñi dañ doon wax ne ku nekk war nga am sa ruqus mën a kan c'est-à-dire que ruqus mën a kan mooy fi ngay toog xalaataat man li may def ban retour laa ci am mais est-ce que Bougane danay toog di jël ay conseils am teg leen ne leen nu ngeen gisee lii ma def mais lenn rek laa ci jàngat mooy conseil yi ko wër yëpp ñi koy conseil yëpp mooy ñi nga xam ne seen dépense ci moom lañ ko yaakaaree te nag wax dëgg yàlla ki yaakaar euh, dépense yow dina jafe wax la dëgg bu bàyyee xel bu baax a baax réew mi di xaw ma ci wàllu xaw ma ci beneen wàll de waaye wàllum politique wax dëgg yàlla saa bu xëyee acte yi muy posé discours yi muy teg daf koy gën a delloo gannaaw mais yóbbu ko ci kanam léegi nag kañ la koy xam wala ba itam kañ lañ soxla woon ñun mu xam ko mooy mu demal boppam ci élection bii doon tête de liste ci coalition gëm sa bopp ba nga xam ne bu ñu passé élection bi man damay xam ndax Bougane Gueye war naa ko boole ci homme politique du Sénégal yi may analyser seen mbir wala dama koy jàppee comme benn Ousseyn Kayta wala dama ko ci war a boole wala boog dama ko jàppee comme benn maam góor ji saak parce que loolu comme moom day forcé boppam que ne mooy chef de la position et puis day forcé boppam bu Ousmane da ngay dem ba ci kanam nga ne kii est-ce que ànd ak sagoom dëgg-dëgg parce que ci manière ci côté communication rek dañ ciy gis ay erreurs yoo xamante nii mënuma reconnaître koo xamante nii def nga tuuti presse ngay def erreur yi mel noonu mooy Ousmane Sonko wax ba pare wala boog Ousmane Sonko annoncé ne man dinaa wax nga ne après man itam dinaa wax mais seetlu woon yow sa public sa public bi nga am yow public bi nga amal sa bopp mais public boobu yaa ngi leen di jox Ousmane Sonko parce que am na koo xam ne contre Ousmane Sonko ba du suivre sax ay waxam. Mhm. du suivre ay programme am mais Bougane rek lay topp. mais le fait que Bougane def publication ne Ousmane Sonko bu waxee pare dinaa tontu mais yëgal nga ko ne Ousmane Sonko day ñu jégee loolu. Mhm. mooy nit ki balaa ngaa pes jéem a ñu sàmm day baax nga xam la muy wëlis. nit ki li gën mooy nga toog jël sa temps. analyser comme wax na ba pare wax na ba pare nga jël discours bi topp ko début à la fin xàmmee ci liy politique xàmmee ci li xamante mooy responsabilité premier ministre mais Ousmane Sonko bu génnee wax ci biir Pastef loolu Pastef am la lu ci yoon lu ci yoonu keneen. wax dëgg yàlla. léegi yow bu dee da nga programme moom dinaa ko tontu kut kut dinaa ko tontu ak lu mu mënti wax dinaa ko tontu te yaa doon xaaree en tant premier ministre bi wax te moom ba muy def déclaration waxul en tant premier ministre mais en tant que chef de wax. après looy def da impact bi mu war am du ko am c'est-à-dire que li ci ëpp ci ñu koy partagé pour comédie la pour ree pour moquer wala comme ça te loolu baaxul ci homme politique homme politique day bax nga am identité c'est-à-dire que Daouda bu ma xolé sama xel dañ né Daouda la mais Daouda bu né bu ma xolé sama xel dem ci Mansour mais Daouda amul fayda mais di doxale comme ni Ousmane Sonko koy doxalee mais lolu même bu jàllee bu ñu la xolé Ousmane Sonko lañ ciy gis Ousmane Sonko dafa ñëw créer identité bopam gor gor lu ba lolu continuer ba sénégalais xamé ko moy critique bo xamanteni ni teg na ko fu leer foo xamante xam-xam lay doon bu ko laajee ñu bëri xam nga dañuy taxaw Ousmane Sonko lépp lu ko waaye opposé defoon na ko mais Ousmane balaa moo wootee garsa garsa daa am fu mu jaar ba yegg foofu mais Bougane daa tëdd këram rek naan café bu neex rek jóg na voilà Ousmane di nga ma raay maa ma raay la yegguñ foofu yow perte pare duñ la yóbbuñ la ci yoon rien dara xewul nga ne ko di nga ma maa ma la toog rek naan sa café wala bëgg tam naan sa fonde bu tàng rek après ne ko Ousmane voilà boo ma bëggee faagaal il faut say loxo tax a dafa am lu mu doon doxalee dafa am loo xam ne dañ ko ci tudd mooy wàllu euh, wàllu xaalis mooy finance mu bala ñu fa egg moom état bi moom mu jaay leen boppam est loolu moo tax bon ñu bëri nañuy wax loolu c'est-à-dire que am na ko ma wax fan yi ma ne ko Bougane dafa mel ni euh, dafa xam moom fi mu jëm wala boog itam fi ñu war a dem ak moom pour que bu ñu koy ko ci loolu boo seetloo ngañ dem wax na ko nee na ko dinañ euh, li nga def ba tax nga bëgg ñu jàppale say wax xam nañ ko mais bu ñu lay jàpp li lay jàpp say wax mais say jëf lañ lay jàpp jàpp naa ne nag loolu moom euh, ëpp ëpp information état waaye itam ëpp li nga xamante ni moo di xam-xam ak itam méthode ñi nga xam ne ñoo incarné réew mi jamono bi parce que nag dañuy xam ne teg nga ko ci lu leer loo xamante ni lu jar a la askan bi ànd ci ak yow parce que Ousmane Sonko nag bu sonn lam doon critiquer bu si askan bi gis doon seen bopp duñ ci ànd ak moom mais Bougane gis nga ne depuis mu commencé ak léegi tey bu waxee suba ginnaaw suba mën nga ne maanaam dem na ba nga xamante ni boo doon xool ay publication Facebook peut-être nga ko suivre. Mhm. rarement Bougane Gueye publication mu def ko bàyyi commentaire yi ubbeeku. bàyyil xel li ma la a baax nga xool commentaire na ko xam nga bu baax a baax retour bi ngay am lan la. ngay am mooy retour bu négatif. sa bopp mais kan moo tax ngay politique. Mhm. du Sénégalais bi kan nga bëgg ñu ñëw arrière du Sénégalais mhm. mais kon dee nga xool fi Sénégalais yi bëgg nga xoolee fa boo ko nangul xoolee mooy kon amaana da ngay far Sénégal yi te nag est-ce que nag boo xëccoo ak am réew population kenn mënul xëccoo moom parce képp koo xam ne nekk ci am réew doon homme politique chef d'état wala loo mën doon bi nga xëccoo ak askan bis jot na yaa mujj perte jërëjëf si kàddu yi